mbokk yi lii nekk benn histoire buñ leen di nettalil ci benn mère bu yor doomam jëkkëram gaañu mu des ak benn doomam moom ak doomam jooju lañ leen fas yéene nettalil tey dafa am benn bés yaayu xale bi jékki-jékki rek dégg am ku nekk ci buntu kër gi di sone ba mu tijjee buntu boobee mu xool gis mu doon doomam mu daldi kontaan loolu wante li ci metti mooy bim koy gàttandu mu ne mu ngi gàttandu doomam lan la ko doom ji faale xanaa romb ko ne ko fu ñu dugg jàpp njàmburam ba mu duggee nag mu toog ci salon ba ci fauteuil bi nga xam ne yaaye ma ko moom ba loolu weesoo yaay ji xalaat ni na defar lekk jox ko doom ji ndax doom jaa ngi soog a wàcc mu mën a lekk lan la doom ji def daal jël benn beñ daal di ko lekk faalewul ba tey yaay ji yaay jaa ngi bëgg a wax ak moom wante doom ji faalewu ko lan yaay ji def mooy mu am nakar lool fas kanam gi loolu xamatul lu muy def mu daldi toog jàpp njaamuram gis ngeen xale bi nekk na ci téléphone bi ba nga xam ni mu ngi yàkkal yaay ji te xamu ci dara ba mu xamee ni def na njombe dafa teg téléphone bi daal di xool lu xew mu xool gis benn rabu àll ba mu xoolee rabu àll boobee mu xam ne lii yaayam a ko daan defar mu daal di ko tulli teg ko fële ca noonee xale bi mu ne mu ngi jëlaat téléphone mu daldi xool gisul téléphone bi mu yéemu loolu muy xool fan la teg téléphone mu xool ba sonn far mu gestu gis téléphone bi di tàkk fële ca couloir ba lan la xale bi def mooy jub daal dem jële ji téléphone ba mbokk yi dama leen di bàyyi ngeen suivre action bii di am fee nii ci xale bi ak téléphone bi ak fan la jëm ak téléphone bi lii nekk benn histoire bu yéeme nekk benn jaar-jaar bu doy waar gis ngeen xale bi ba mu demee jëli téléphone bi ndakate booba ci gént la ne woon nekk ci benn gént gu ko yéem wante xale bi bi mu yeewoo dafa xam ne que moom ci li mu nekk nekkul ci yoon mu daal di rëccu lépp loo xam ne mu ngi ko doon def bàyyi yaay ji ni mu nekkee coono yi mu nekkee te moom jàppalewu ko ci dara xale bi xool yaay ji xam ne yaay ji ba tey mbëggee la nga des ci moom yaay ji xool ko bëtu yërmande yaay ji ne ko foo mënti dem loo munti doon sama doom ngay doon kaay ci samay loxo yaay ji xamal ko ni yaay sama doom duma la mos a sànni mbokk yi histoire bii dafay wax ci wàllum réseaux sociaux bëgg naa ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax